dama ko parce que mouvement citoyen bu change bu jamono ko da ngay ko and ak jamono ndax Sénégal réew mi dafa peu ci de bu né dañ ko violence dafa manifester wu lu musul am Sénégal ay ndaw yi dé ci gi bal dal du ma ko noppee di ko wax Modou Gueye xale boobu ñu boomoon ci kolobaan man su may jël symbole xale boobu laay jël bu ma xoolee bëtam yi rek sama ranko ñu day sotteeku xale yu bari de xale yu bari jël gaal yi ñii dañ leen di def jaam bu ñuy traverse bu ñuy traversé Méditerranée mës saa nekk ci benn hôtel Paris mu am benn Camerounais boo xam mooy passé la garde la nuit mu ne ma madame boobu ma ne waaw mu ne ma man bëgguma naar ma ne ko lu tax mu ne ma li ñuy def suñu xale yi diggante Tunisie ak Maroc ci biir polisu Maroc ma ne waaw mu ne ma man mënuma bëgg naar loolu yëpp ñu koy dund xale yi boo demee bi am na ñuy def ay témoignages dañ leen di def jaam maa ngi dégg bërki démb ay xale yu jigéen ñu ne Liban amuñu droit jur fa doom amuñu droit sëy fa gis nañu li dal suñu mbokk moomu tey ci Arabie Saoudite xalé ba nek ci prison ba ñep faté ko fa dafa dem ba mënatul parce que di nga dem ba yenn violence buñ la ko tegee boy réagir doo ko sax tey loolu yëm ñukoy koy dund ma gis xalé yi fuñu ñu dem génn désert caragua ba ma ngi gis kenn muy expliquer dañoo nangu alalam yépp lépp lu mu amoon dañ ko jël gis kenn frère am

te wane na ko élection yi wane na ko léegi nag ñooñu nga xam ne dañu nekk anti système mënuñu continuer di nekk anti système rek nañ leen jël ànd ak ñoom ñu bokk liggéey encadre leen jàppale leen parce que parti politique yi encadré tuñu société bi même confrères yi nga xam ne dañ naan am ay daayira xale yi di ci nekk confrères yi ak lu ñu bëgg-bëgg situation bi dépassé na leen parce que demande bi dafa forte ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen léegi nag ñun dañuy toog parce que lu mu bon bon yàlla may nañu possibilité ñu jàng am tuuti xam-xam lu mu néew néew lu mu bon bon am nañu engagement boo xam ne yàgg na léegi nag loolu dañ ko war a mettre gis ngeen ñi fi toog ñëpp kilifa yi fi toog yëpp ñëpp nga àndandoo ñu mettre loolu au service de notre société parce que nag changement bi du jóge ci kaw yàgg naa koy wax société bi la ñu war a soppi soppi nekkinu société bi ak doxalinu société bi su ko defee bu ñu amee doole ñun société bi citoyen lu ñu sant om politique yi dinañ ko mën a def. mbedd mi mbeddum mbuur la def fi ba la jóg alalu buur la ñëpp a ñëpp a ci bokk yam daf fi war a jóg parce que itam li nga xam ne sunu réew da koy générer nee nañ ñi ngi jëm ci pétrole ak gaz or bi. bu fekkente ni ñiy jël or bi dañ koy jël yóbbu ko mu mu seen man sax damay toog ma ne waaw alal jooju yëpp lu ko nit di doye man xaw ma ko yow boo amee foo dëkk am loo lekk am loo dundale sa njaboot mais pour lan ngay dajale alal jooju yëpp ba delloo ko ci askan wi. parce que li ngay liggéeyal askan wi loolu mooy des man de nee naa leen man Mandela mooy moom laa bëgg doon waaye bëgguma doon président yi nga xam ne dañoo riche yóbbu seen alal ci paradis fiscaux yi nekk ci paradis fiscaux yi teg fa seen alal seeni sët seeni sataat ci kaw nag sët yeeg sataat yi fekke ko parce que itam yàlla am na loo di souffrir loo sa peuple di xañ sa peuple dem nag di tranquillement yow da nga ciy dund sa njaboot di ci dund ngeen di ci bànneexu ngeen di am seeni i seeni oto yoo xam ne ni oto yi day am ba am eh, ay ay ay douche yu ciy nekk ngeen di noos seen noos ngeen foog ni loolu yàlla da koy seetaan yàlla mënu ko seetaan ak moo gën a bon ci àddina suuf bi ñuy caxat-caxatee nag man dama yax yéemu ci Sénégal tey waaw yow da ngay gis kenn koo xam ne ñu ne hectare yooyu yëpp moo ko moom lu mu koy doyee parce que nag Ablaye Wade dafa am lu mu fi def da jël terrain bu mag may ko nit nit ko doyewu ko dara waaye da koy daggat di ko jaay jël ay millions dugal ci compte bancaire am bari na kilifa yu ci am makki bi mu ñëwee dindiwul loolu dafi am kilifa yoo xam ne am na kenn damay déglu li ñuy wax ni noonu la def ak loolu am ma ni kii moom miraas na senegal Sénégal amatul dara di kii li mu jël ci Sénégal fuñ koy fuñ koy daboo waa ngay jóg boo jógee loo koy day dëkk ci otel ñii di takk ay jabar di noos ah ngeen foog ni loolu day wéy rek mënul wéy nañ delloo si alal ji ci askan wi man de néewu ma nañ dàq mais nag ñi ko yore bu ñu demee ba xam ni ñii ñoo ko yore nañ ko nangu delloo si ko ci askan non mënuñu ko bàyyi nii te gis nga lii du tey du tey rek dafa yàgg gis nga maa ngi ñëw ci patrimoine bâti parce que loolu daf maa ñor dañuy wax ne fii Fann Résidence ak Point E université ñoo moomoon fii yëpp am na benn at mooy defe naa SAES e di grève ba SAES de grève dañu dem pour def jë gëstu affaire patrimoine bâti boobu waaye mu jul yegg parce que ñi ko jël ay borom doole lañu bi ñu jógee ci loolu ab Ablaye Wade bi mu ñëwee moom xam naa ni gis na li ñeneen ñi defoon mu ne man tamit lu tax ba duma ko def mu xool li fi des yëpp patrimoine bâti état boobu mu jël ko may ko ay ñooñam ay xaritam am na ñoo xam ne ni mënoon na ñëw dund ba dee moo ñoo mën a yem brique sax duñ ko am waaye ñu am ay kër ci kër yooyu nga xam ne tubaab yee ko defaroon ci booru lycée Van Vogue yooyu yëpp muy kër yooyu état bi moom ko kër yi dañ ci waroon dëkkal ko am responsabilité boo paree nga génn sa moroom ñëw mais léegi def nañ ko ay moomeel. maye na kër patrimoine bâti yëpp yi amoon temps yooyu dëgg la nag moom dafa yewan waaye nag yewanam googu warul jëm ci alalu Sénégal yemul foofu gouvernance su Macky continuer tey man dama dégg ñu ne ma nag ñeenti kër moo des ci patrimoine bâti état boobu waa li fi tubaab yi bàyyi woon bari na. et puis li ma metti aussi dañu commencé patrimoine bâti boobu le Sénégal euh, Dakar ville bu Dakar dafa nekk ville amatul personnalité Dakar amatul jam. Dakar ku ñëw toj tabax ces immeuble immeuble yi bi di gudd yi gàtt yi ñu tabax peinture comme comme alors ci ville il Marrakech Casablanca mais am man dama ko daan wax jamono sengor suñu prof bi ñu daan jàngal géographie urbaine dafa daan wax ne moom gisul exemple bu gën exemple sikaab ci àdduna bi waa tey ana sikaab yi lépp yàqu waa ñun nag ñun dañuy dañuy war a nekk rek di dundu dund baadoola rek ba kañ ñëpp la nag bu leen yaakaar ne rek askan wi nag foo ko làmb rek parce que yow li nga am lu mu néew néew mu bari da koy bokk te boo ko bokkee yàq ñàkk yéenay xaw a daal di yem ñëppay bokk fi bok mo tey réew mi waaye nag dañ dem wax ba bokk boobu mënatoo la nekk parce que amato lo bok lolou moo tax nag ma gis ne dañu wara a ci si suñu xel et puis ñu rationaliser aussi suñuy comportement ñu rationaliser suñuy comportement mang koy wax ah dégg na premier ministre bi nee na wi dafa cher nangam nangam wa yàpp wi dina cher ndax li ñi tek jur gi attanu ko xool leen Sénégal li fi am ci cérémonie li fi am ci xew-xew de lépp da ngay ray ay nak ray ay gàtt ray ray ray waaw lu tax tabaski bu jotee benn kër mu ñu fa rey benn xar wala ñaar lu tax dañ fay rey ay fukki xar fukki xar ndàngam lu tax loolu mais ni ñuy ni ñuy ni ñuy tey jii jën yi noonu la ñu war a ñoŋalee cheptel bi loolu yàgg naa di ko wax bu dul loolu kenn danañu dem ba dañuy bu ñu lu tax Mauritanie ak Mali war a mën a am ay xar yoo xam dañ ko fi ñëw di ko jaay si te ñu waruñoo am xar yoo xam ne nii dañoo war a mën a dundal